waa kay asalaamaaleykum mbokku internetu jàmm ji info mbokk yi jàmm ji info ni ma koy faral di defee saa su ne si seen jotaay ci wàllum actualité waaye tam ci wàllum xew-xew euh, bu mu mënta doon tam jàmm ji info day fas ànd ak waaye balaa ñoo def dara tam dañuy rek ànd yéen tam di leen euh, gërëm di di ak ngërëm saa su ne ànd bi ngeen ànd ak suñuy mu mel ne rek mbokk yi ñu ngi ci ligne bi ak euh, oustaz ñu fas yéene waxtaan ak loo xam ne ci tey ci wàllum social waaye tamit ci wàll loo xam ne xew na ci tamit ci réew mi dañ ci waxtaan oustaz Iran balaa ñuy sori rek ñu ngi lay wax asalaamualeykum. waaleykum salaam euh, sëñ Mountakha. ñu ngi lay nuyu di nuyu waa jàmm ji info yëpp. jërëjëf. di nuyu ñu koy seetaan ñëpp di leen ziare. alhamdulilah. waa kay oustaz fi ñu yëkkee sunu laaj bi rek yaakaar naa benn la boobu ba léegi mu nekkaat tamit euh, beneen euh, mën nañu wax nii sa taxawaay muy wàllu combat bi nga xam ne yaa ngi koy mëne combat bi nag bu koy wax muy combat ak salaam muy li nga xamante ne mooy dem yàlla Ablaye Mbaye mi nga xamante ni amoon na yéene def mottali li nga xamante ni moo di wayjuram wayjuram muy wayjuram bu jigéen muy kër gi nga xamante ni itam euh, amoon amaloon nañ ko fi waaye mu dem ci yoon woo xamante ne xëy na yoon ànd ci niñ ko doon fi ñu ko waroon sanc mu dem ba indi am ay jafe-jafe ñu daaneel kër gi nag ñu joxoon leen délai ginnaaw tabaski mu mel ni rek war nañoo taxaw ci li nga xamante ne mooy wutal leen fi ñu dugg oustaz fan lañ toll ci mbir yi jamono ji. waaw jërëjëf sëñ Mountakha waaye jërëjëf itam euh, ñi nga xam ne ñooy bokk di seetaan jàmm ji info. Mhm. xam nga sëñ Mountakha liggéey bi fiñ ci toll. ko mhm. wax nga lépp ni nga ko waxee rek la demee. dëgg la. Euh, xam nga Ablaye ginnaaw moom dafa amoon yéene. Mhm. waxoon yaayam ne ko dinaa la wutal kër. dëgg la wër na kër nag waaye la ca des mooy dugal gi moo amul xam nga yàlla it moom sunu borom dafa wax ne faalun li maa yuridu mhm. nee na yéen du lu leen neex ngeen def man lu ma namm rek loola mooy am waaw namm namm yàlla moo doon Ablaye dana jënd kër gi waaye yaayam du dëkk ci kër ga mu jënd wa mhm. loolu mënuloo ci dara dëgg waaw yàlla moom lu ko neex lay def kenn amul coobare. wallaahi waaw ndax eh, defe naa ne am na foo jógee ci séntu woon ne danga dem foofa. Mhm. waaw donc kon nit amul coobare programme yàlla ci la ñëppay dox. wallaahi wallaahi yàlla dogalee nag mu ut kër googu. Mhm. Eh, yàlla dogal mu jógee fi. Mhm. yaayam ci gémmiñam laa ko déggee parce que waxoon naa leen ba tay ne man yëguma ko woon. wallaahi wallaahi. yow Moussa Mboub moom moo ma envoyé lien bi ak vocal. mais wax na ci gémmiñam ne Ablaye bi mu uti kër gi di dem yoon bi ñu miiraasee lam am ca miiraas ma mook ay doomam moom lañ dajale def ko ca terrain booba. wallaay ndeysaan. waaye yàlla dafa dogal nag terrain ba yoon moo tere foofu ko fa tabax. Mhm. waaye yoon nag moom yoon yoon rek la tudd. wallaay waaw amul solo détail na mhm. eh, bi loolu amee ci kër ga gàntu fi mu nekk ñu mayoon ko ne ko après tabaski ki ngay génn. man nag diñ eh, ma ko yónnee ma xool ko. Mhm. Muntaxa li ma gis mooy que ma seen mu toog daal dama jàpp ne que soxna jaara ndaw sama yaay moo toog nii. wallaay ndeysaan. Eh, lay mbay ma ma seen mu toog ma jàpp ne que de Iran ndaw la wara doon. kumba ma ma gis mu toog ci wetam di an di seen maxa ma jàpp ne sama grande sœur la Fat Kiné moo mhm. toog nañ man loolu laa jàng ci jataay bi ma jëlal ko sama bopp. Mhm. nga xam ne bu doon soxna jaara du ma nangu kenn du ma seetaan sama yaay nit ci biti danaa xare ba sama am fu ma dugg mhm. donc loolu ma moo ma jàpp ma ne nag il faut ñu taxaw ñun ñëpp ndax euh, man léeg-léeg ma dégg ñu Sénégal réew yërmande la réew teraanga la réew jàppalante la mhm. xamu mun taxaa réew mi ban cat la am waaw koo àndal fii ci àdduna mu tane la mhm. bis bu demee ba gis ne am nga carax yu bees mu soppi ànd ba <laughs> Sénégal noonu la bindoo koo fi àndal borom alalu sëriñoo ñëpp a ci mhm. koo ci àndal ba mu yëg ne yaa ngi bëgg am mel ni moom rek mu xaaral yow. borom alal yi muy ci lépp nag wap côté boo dem fala falaamee. Mhm. waaw maanaam nit toujours xam nga lu mu bëgg. waaw di jiitu ñu topp ci kawam. nit bëggul ko làng moom nit bëggul ko jiitu te man dama yaakaar ne. Euh, bu ñëpp amoon yéene ku ne am jàmm rek defe naa kenn dootul am jaaxle. dëgg la dëgg la. bi mhm. loolu amee nag man ma gis ko ci euh, sukkandiku jël ci sumay engagement waaye ànd ci ak jaamu yàlla yi. alhamdulilah. Mhm. comme niñ ko defee woon rek tey soo biñ ko tëjee kaso. Mhm. ñu bokkandoo taxaw ñun ñëpp. yàlla defal ñu sutura ba mu génn dellu ci ay activités am. dëgg la. te damay wax ne bu soxla si moo gën a pur. moo ëpp doole parce que kii jigéen la. Mm-hmm. waaw jigéen la te jigéen yàlla dafa nañ ko toppatoo. Mm-hmm. alors que nag ñoon ñu doon ci dox di ci dox di ci dox benn jigéen bu baax moo wax doomam ne ko waaw kër gi ñu amoon fii ci cité mm-hmm. nga doon ko jaay te nga ko jël jaay ko Iran ñu ngi kër bu ñu dëkk. ndax mu mën koo jox soxna soosu. kooku moom a ool boppam fekk wax naa Moussa ne gannaaw yow yaa ko gis toppatul kër nga wax ma ko. léegi far euh, loolu yàlla dogal kooku dem woo ma wax ma ko ma ne ko baax na danga may fekk seen TV. Mhm. su ma liggéeyee ba pare ñu ànd ma dem xool kër. d'accord. Mhm. moom moo ma jël si ci oto. Mhm. yóbbu ma ma ànd ak mab ba ba ñu demee ñu xool kër gi. franchement am na am na ci mbett moom moom boroom kër gi. d'accord man mii am naa ci mbett luy mbett bi mooy la ma foogoon amul moom it la ma foog la ma foogoon nekku fa ndax. xam nga sénégalais moo mel noonu eh, eh, foo boo ko dénkee sa alal au lieu mu jàppee ko alalam mais daf ko yàq. waaw lu doy waar lu doy waar. waaw ah, mu muy yàqu. Mhm. mais nag amul solo. Mhm. ñu d' ci waxaale ba d' accord ci quatorze millions. d' accord quatorze. quatorze millions muy fukki millions ak ñeenti million mhm. waaw quatorze millions. dañ ci d' accord yi fayuma ko dërëm. dërëm joxaguma ko. Ah. ma ne ko dañ ñu koy defal loolu. waaw fekk ay dix-sept lañ nekkoon seize quinze euh, euh, ba ñëw ba ci quatorze millions. d'accord li li may waxaal yëpp nag mun taxaat gisuma kër. gisagoo kër. gisuma kër. man daal bu ñuy dégg daal dafa mel dañ la koo téyandil. Euh, maanaam bi may wax ak moom. Mhm. booba gisuma kër gisuma dara ba may waxaal ndax. Ah. booba sama xel ngi ci maire bi. mu may fexe ba mu am fu mu dëkk fu mu dugg. wallaahi ba xalaatuma ne yoon maywul ngay waxaale loo gisul. dëgg la dëgg la. waaw parce que yoon maywul waxaale loo gisul. dëgg la bien sûr. waaw mhm. mais gannaaw man lii gis naa ko ci loolu occupé na xel mi waroon a xalaat. Mhm. bon te it ki am na yéene bu rafet borom yéene bu rafet doo doo doo doo toroxal yéeneem. Mhm. alors que ñu dem seeti kër ga ñibbisi. mu jë ñu jaar këram. waaw moom jaar këram mu ne ma naa la jox këyitu kër gi. Mhm. bala ñoo def ay acte de vente ak dara. dëgg vérifier est kër gi valable na wala déet xam nga kii mhm. wóor na. wallaay ndeysaan. ñu ñu dem mu jox ñu këyitu kër gi ma bi ñu wàccee ma jox ko mabba ne ko demal nga toppatool ma ko. Mhm. mabba toppatoo ko ñu wan ko ni këyit yi légal na. donc kon lu ci des mooy jéem fay kër gi jéem a kër gi. d'accord. Mhm. waaw loolu ci la ñu toll. alhamdulilah léegi nag ci la ñu jàppoon ne téléthon bi le quinze août bii di ñëw muy samedi lay tombé. Mhm. après journalu olof bi bu jeexee. ci guddi gi. Mhm. incha allah ci la ñu def téléthon bi fële ci euh, seen TV. alhamdulilah dàqontiwul ak nag dàqontiwul ak. d' accord parce que ñun nag ñaar rek la ñu desee borom kër gi mooy lan. ñu jënd quatorze millions yi. ak mu defal ñu acte de vente. waaw libéré ñu kër gi ñu mën a jublu ci liggéey. dëgg la. te xam naa ne loolu it man la ciy xaar wala boo ñun la ciy xaar. incha allah naa mhm. ñun ñëpp ñoo bokk taxaw. wallaahi euh, pour fas yéene liggéey loolu. incha allah. Mhm. léegi nag loolu foofu la ñu toll. Mhm. la quatorze la ñu la quinze la ñu war a daje. waaw kër gi fukki million ñeent la ma koy la koy jaayee. bëgg naa bu ñu yàlla dimbalee ci mbaaxam. ak tëralinam. parce que man nag euh, mun taxaw sama philosophie mooy. waaw aw ma programme. wallaahi wallaahi. man yàlla rek. Mm-hmm. laaj tënku ci tëralinam. Mm-hmm. waaw parce que yoon yàlla ànd ci du sot. dëgg la wér na. waaye li ñu am yéene mooy sunu yaay jooju. Mm-hmm. septembre incha allahu dana dëkk ci kër. alhamdulilah alhamdulilah. bu ko bu gënalee. loolu la fas yéene. ñu ci ay taxawaay nag. su fekk yàlla dimbale nañu. quatorze millions yooyu yemb ba ñu jox ko borom kër gi. la ci des nag mooy songu liggéey bi incha allah continuer songu liggéey bi. macha allah ba yàlla yeggale ko jàmm bëgg nañ ne daal diggante quinze août bi. waaw ba fin septembre daal. parce que ñu yàlla ñaan yàlla mu yóbbu ñu ci ak jàmm. alhamdulilah li ci des nag mooy. Mhm. Euh, muntaqa. Euh, fekk nit ku génn ci biti nga dugal ko ci néeg. wallaay ndeysaan. fekk ko ñàkk kër nga jox ko kër. fekk ko amul lu mu sol nga jox ko mu solu. fekk ko xiif nga jox ko mu lekk. fépp kuy dem te amul paas mhm. yooyu ñëpp yàlla da la koy faye aljanna alhamdulilah kër gi amul ku ci jàpp ku ci jàpp laa wax te la nga ca jàppee yàlla du la ko fayee kër aljanna baabu ma kenn alhamdulilah mais waxuma daara man daara mënumaa felloo daara ci àdduna mënumaa felloo mhm. waaye amul benn actionnaire buy bokk ci kër gi nekk ci action am ci ay action ci kër gi yàlla du la fay aljana ndax yàlla moo wax yonent bi ne ko ku dëkkal sama jaam ma dëkkal la wallaahi ku teral sama jaam ma teral la mm-hmm. waaw waaye ku toroxal sama jaam ma toroxal la waaw wallaahi yàlla bu jëlee nit di ko yóbbu safara ndax muus day wane ne xeebul jaamam rabbana maa xalaqta haza baatilan yàlla xeebul dara ci lu mu bind ci lu mu bind am na lu tax mhm. kon nag defe naa jàppale suñu yaay ji alhamdulilah fexe ba mu am fu mu dëkk ñun ñëpp ñu jàpp ci mhm. kenn ko ne am ci ay action nekk ci actionnaire gisuma lu ko gën dëgg la si ñu ngi ci weeru ñu ngi ci weeru muharram tam xarit waaw ñëpp ñi nga xam ne mun taxaa ñu ngi génne seen asaka man mhm. nañ ko ci def alhamdulilah ñu jàppale ko maire bi liggéey bi daaw ñu teel am na ñu may o waaw ñi ay maçon lañu ñi ay peintre lañu dama buñ ci yegg ñi ay carreleur ndeysaan buñ ci yegg daal dañu bëggoon luñ ci war a def nga nga jox ñu ko ñu def ko ngir yàlla ndeysaan lay ndeysaan waaw waaye daal lu man a am mhm. mooy ñu ngi tàllal loxo ñëpp ñëpp ñëpp ñëpp alhamdulilah ah ku mën a jënd kër gi sax nañu am jënd naa ko am xaalis kër gaa ngi baax na. alhamdulilah ñu ko amul nit ñu daje suñu ñaar dërëm suñu ñett dërëm ba mu yembale ñu jox borom kër gi. jërëjëf wallaay la ci def ñu door dàqil ba mu mat ñu defar suñu kër jox suñu yaay. alhamdulilah moom ala kulli xaalin incha allahu. Mhm. yàlla mi ñu jox bi moom dana ko yeggale. macha allah. ci loxo yàlla nekkul ci loxo Iran. nekkul ci loxo kenn ci loxo yàlla la ne. alhamdulilah bu ko yàlla na naree yeggali dana yegg. lu yàlla tëral nag ñu tënku ca loola rek man sama principe loolu la. macha allah waaye am nañ yaakaar bu baax. Mhm. numéro téléphone nag joxo naa leen ko. waaw waaw ñu dara képp koo xam ne. Mhm. képp ko xam ne bëgg nga ci dugal sa ndimbal. Mhm. Eh, ci mottalil Ablaye Mbaye yéeneem ci yaayam. alhamdulilah ba nga xam ne yaayam du tumuraanke defe naa ne numéro yi mën nga ci dugal. Mhm. boo fekkee nag Mountakha yàlla dogal na. waaw borom kër gi génne ko. danañ ko wutal fuñ ko luyeel ba këram mat. bien sûr su këram sottee ñu bu ko fa. alhamdulilah numéro téléphone yi mooy 77. 012 42 42. 77 012 42 42. wala 77 656. 92 65. 656 92 65. wala 77 111. 01 75. 75 111 01 75. macha allah yëpp am na Orange Money. alhamdulilah wala nga def ko Wave. wala nga def mm, mm, wari Ibrahima Badiane. voilà mm-hmm. ñetti numéro yi ni sëñ Mountakha. léeg-léeg nag bu ñu plafonné nga baal ma léeg-léeg nga dégg ñu ne plafonné nañ mën nañ ko def par code. waaw mën nañ ko def par code nga def Ibrahima Badiane. d'accord d'accord ah, am na sax beneen numéro bu ñu génnee. waaw boo xam dañ ko def. Mhm. Euh, pour mu seconde numéro yooyu. waaw waaw ah, mais boobu génne guñ ko. ñu ngi ko doon euh, def yóbbu ñoom Saliou. incha allah yóbbu woon nañ ko pour ñu def ko orange wane. baax allah xëy na bala ñoo yegg ca plateau ba wala ca plateau ba. danañ ko boole ci numéro yi mu nekk ñeent. ndax bi ñu def téléthon tey bi quatre numéro la woon. incha allah. voilà incha allah loolu moo nekk yéene ji. alhamdulilah euh, euh, euh, Muntaxa. jërëjëf ñu tàllal loxo ñëpp fàttali ko ñëpp. alhamdulilah incha allah la kay képp man nag samedi samedi. samedi su neexee yàlla à de deux heures dana fekk télé TV. alhamdulilah à de deux heures. waa képp ku bëgg a def. da nga fa fekk. waaw. parce que itam plateau bi du yaatu yaatu koo xam ne. waaw danañ mën a wax liñ bëgg a wax yëpp. dëgg la waaye nag képp ku bëgg jëf rek mën nga teel a ñëw fekk ñu fa. baax na ñu noté li ngay jëf. bu guddee itam ñu ñu lancé waat appel bi. Mhm. kuy ñëw soo fekk ñu fa baax na. waaw ku mën a jaar jaar ci numéro téléphone yi baax na. Mhm. ku nit mën a jaar bañ jot ci rek baax na. waaye jàpp leen ne ñetti numéro yi moo valable. Mhm. beneen numéro boo gis nag borom xëy na day waaba jiwe wala muy kuy dox ay affaire boppam. waaye mu daal lay doxee. Mhm. xaalis benn bunt lay am du am ñaari bunt. bien sûr ñaan itam ñi nga xam ne ñoom lañ koy defal. waaw ñu jàppale ñu ci loolu. ñu jàppale ñu ci loolu. képp ko xam ne ñëw na di participer ñu envoyé ko ci équipe bi yor liggéey bi. incha allah ñu ngi koy ñaan ñoom ñi nga xam ne. ñoom la ñuy liggéey liggéey bi. Mm-hmm. muy mbokki Ablaye loolu dañ leen koy ñaan. alhamdulilah koo xam ne wax na leen bëgg ci jàpp te yëgul li ñu tëral ñoom nañ ko orienté mu dellusiwaat ci équipe bi nga xam ne mooy gérer liggéey bi. alhamdulilah loolu itam wax ko ci farata la. Mm-hmm. ku a doon itam dañ la orienté nga dellu si ci équipe bi ñu xam ne lépp benn yoon lay am parce que bëgguma ñaanuma ko yàlla sëñ Muntaxa ñu jógee ci muy am ay coow. wallaahi wallaahi ñu dem ba ci biir muy am ay wax yu sew. nañ ñu bàyyi rek tout tranquille ñu liggéey sunu liggéey képp ku ñëw ci nit wax ko ne ko orienté ci numéro téléphone yi la mu ci def mu def ko ci numéro yi ku oote da nga ma jot. incha allah da nga ma jot. Mm-hmm. waaw man numéro yi kenn yoru ko mën naa ko yore. incha allah xanaa loolu rek moo ci nekk. waaw waaw réew mi dafa xaw a jaxasoo leeral gi baax na. daf ci am solo. Euh, oustaz fi may daanele rek euh, xanaa foofu la ñuy daanele ndax ni ma ko waxee samedi 15 août bi nga xam ni euh, téléthon bi ca Sen TV kon mu mel ni rek fu mbokk adduna bi rek laay wax addina bi laay wax muy doomu aadama yi nga xam ni fas yéeneen rek jàppale ki nga xam ni moo di yaay Ablaye Mbaye mi nga xamante ni comme mbébétam ni nga ko waxee kon jarul sax ñuy xaar 15 août jamono gi bu ñu mënee tàmbalee parce que mën na xat plateau bi mën naa xat. waaw non non su ne ko am li tax ma joxe numéro yi ko am gaawal dugal mu ñëw. mu gaaw ñëw waaw ah, moom kay nañ ñëpp envoyé rek. waaw waaw parce que suñu sañoon bala ñoo yegg ci quinze août bi. waaw eh, eh, quinze août ba ñu cee quatorze millions yi mat. moo mat dëgg la ah. dëgg la. Ah, bu ñu amee quatorze millions nag. <laughs> borom kër gi ñu mën ko jox xaalis libéré wu moom ñu débranché wu ci moom. moo ngi ko nañ ñun suñu activité. jërëjëf c'est nga wax dëgg la. macha allah. Mm-hmm. jërëjëf ah Oustaz ah kontaan nañu kon mu mel ni ah euh, ñu ngi fas ne ànd ak yow ni ñu ko waxee kër gi sa kër la muy jàmm ji info euh, saa suñu soo yittewoo ak loo mënta soxla jàmm ji info taxaw na wet sa wet tamit noonu la ñu fas yéene di dugal tamit fas yéene ànd ak li nga xamante ni mbooleeg mbokku euh, téléspectateurs yi ñuy bàyyi xel tam di taxaw tamit sa wet di la jàppale ci liggéey bu am solo bi ndax liggéey yu la ni nga ko waxee Oustaz lan ngay tàggatoo incha allah